bismillaahi bàkki seexi bamba xaliilula liggéeykatu bi yeneen ba lay tàmbalee tayit di wax salaamun alaykum ne mooy nuyoob lislaam nuyoo bu mat te seetlu lool te dëggu ci lay nuyu kuy dégg tey say kàddu maa ngi nuyu kull ku toog suñ jataay tayit di ñaan yàlla ñu am gën gi mi daay maa ngi nuyu kull ku teew suñ jataay tayit di ñaan yàlla ñu am gën gi mi ma jug jaxal fi ay beyti tënk yal na mat buur musal ñuy fànk ma kanta bàkk mbër ma seexinal xadim donte dinaa ci lottu waaye rek ma jëm moo ñàkk maas ñàkk morom ak dennandoo saalika fadlullaahi kon jërul xaccoo yàlla ko def moo raw ci gaañi man si xol bu ko sopp raw ci yowmal xarsi qulubu jumlati lasiina aflahum li yettawajjahat wa rabbi muslimu kon nañ ko bëgg sopp gëm te woolu te bañ ko boole ak leneen weesu na bamba di mbër bamba di gon mooy gan lislaam ji moo ko dëgëral si réew mi 1895 dafa xewoon ñépp a ko xam saaxin la woon lu baatin woote ba matlee woote woon biram ndax sëriñ sa ñoom ñépp a delluwaat seeni kër lu tax ñu dem ñu waat ñu yóbbu bamba lañ waxa wuute ci biram maa yomba ñoom ñépp a ànd gouverneur ci bëggam seex bamba rekk moo ko fa wax lu ñépp yem daal ne matlee may na waat lislaam sëf leen ma ma joor leen ma ko fa ay natt yu tal te yàgg tal mu metti metti na bu sëgg ba wax na sax bu fàttalikoo guddik daqaar day bëgga jël ngànnaayi xeexi fital jaxaar إذا سكت ذلك المبيت وذلك الأمير والسبوت طارت إلى الجهاد بالأرمام نفسي ولكن سبقني maahi wallaahi ak demam ci réew soriya ci la ko buur fayee lu ump nopp ya sayyarani ilal bilaadi naiya wa qaadali muhjira safa saariya moo tax itam lim am bu kenn sonn kenn du ko am se bàmba moo di kenn saa yoo gis mayem muy gëna a fees tey dañ na kàpp Sénégal fépp la fees moom ay mayem sax booy wax fi doo fi jóg kon nañ tënk rekk te ñaan ngir yépp jag amina amina ci barke ci may magi Ceernoog Sëriñ Masamba ko askay wa askay sarinken nama samba baay basak abdu xaadar baay seexan bu fadar ba maami jàmbaar ñu àndal muntaqaa mi toog jotaay yal na ko am fan ak wér tàpp nam falekew